li gën ci ñun nag ñun waa Sicap Liberté lu tax ñu am ci wërsëg mooy suñu boroom daf ñu wan bu ñu àndulee du ñu am ndax li fi xew local du caa génne amuñu doole ndax ñun ñii fi toog bi ñu boolee suñuy doole mais kenn duñu séen rawatina ñu jël commune kon li ñu dal mooy nañu àndandoor nekk benn dem tant que defuñu ko dina néew lu ñu am fii donc c'est ça mais ku ne faru fa la beneen bi mooy damay remercier waa coalition Benno Bokk Yaakaar bu Sicap Liberté ma ci jiital suñu doyen suñu kilifa l'honorable député sant seen am ndax tette nañu yiir nañu aar nañu te mi ngi yor busoom di ñaw loolu bu ko defee def na li ko war def na li mu xam kon honorable ci sama tur ci turu comité électoral Benno Bokk Yaakaar Sicap Liberté sant nañ la gërëm nañ la ci sa taxawaay taxawaay boobu nga am moom la madame D bu LD am moom la waa parti socialiste am moom la waa réew mi am moom la waa LDR yeesal am moom la waa APR am moom la responsable yëpp am Tamsir soxna wax na ko sànq moom la comité électoraux yëpp def kon yéen ñëpp sant nañ leen gërëm nañ leen mu des nag ñu ñëw ci yéen ni ko Tamsir waxee président dafa def li ñuy wax inclusion sociale et économique priorité dafa ne réew mi li ko war a tabax ñëpp a ci war a dugal loxo loolu mi ngi ko wax depuis avant 2012 bi muy indi programme am yoonu yokkute mu ñëw ba jël nguur gi en 2012 xool li ci ne seet la ca am mu boole la fay xam-xam yi fi màccoon bàyyi mu jël yëpp tëgg ko mu nekk plan Sénégal émergent mu indi ci ay projet ak ay réforme yoo xam ne yëkkati ministère u lëmm rattaché ko présidence de la république ne dénk naa ko Karam Safara kii est-ce que mat bi mu jógee ci loolu mu ne du yem foofu plan boobu dama koy décliner def ko ci juróomi initiative initiative bi njëkk bi nga xam ne du ma nelaw du ma yendal du ma fanaanal loolu rek laay def laaj leen ma lan la PSE jeunesse président Macky nee na du nelaw du yendal du fanaanal jeunes yi mooy ay priorité teg na ci yeneen secteur deuxième secteur bi mooy économie sociale et solidaire boobu la ma dénk mais ci jeunesse yi laay yem parce que daf ci def lu am solo liggéey ci lu am solo ñu wër réew mi liggéey ci defal programme jeunes yi mais mu ne ñu seppi leen nag commune yi dem leen ci gox-goxaat yi ndax bërki démb la recevoir mboolem marché yi nga xam ne ñi ngi nekk ci région de Dakar jàppale leen te ñëpp xam nañ ne suñu yaay yi suñu papa yi suñu nijaay yi ñoo ne ci marché kon ñooñu ku leen jàppale jàppale nañ njaboot bi mais mu ne yemul ci loolu danaa yëkkati lu takku dugal ko ci commune yi ñu tàmbalee ko nag commune Sicap Liberté ndax comme man maay joxe bu ma neexee ne premier Sicap Liberté te bi ma demee ba naan ah maa duma jël beneen commune Tamsir daf ma ne déet bul fàtte contrat bi Sicap Liberté kon tàmbalee nañ ci yéen waaye li ci ëpp solo du financement yi nga xam ne ñu ngi koy joxe li ci ëpp solo mooy ngeen encadré wu li ci ëpp solo mooy ngeen def formation li ci ëpp solo mooy yéen ci seen bopp en tant que jeune que vous décidiez vous-même de votre destinée que vous décidiez vous-même de votre avenir il est temps que la jeunesse cesse ou cesse d'accepter que l'on décida pour elle et ça nous comptons sur la jeunesse des Sicap Liberté parce que Sicap Liberté dafa mus a nekk référence boo xoolee jet yi fii ku doon daw biir Dakar da ñëw jet parce que c'était la fenêtre de Dakar fenêtre boobu nekk Dakar loolu la ñu bëgg àndandoor la jeunesse de tout les SICAP te loolu contrat la bu may jël ak Tamsir nous devons prendre un contrat moral fii parce que boo indee sa doole ma indi sama doole état ñëw indi dooleem doole ñu ci leneen ak leneen ñëw dooleeku mais yéen ñiy toog am yaakaar ci ñun ma dinañ am yegg kon tey kenn ku nekk waratul xool boppam rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a ànd ak ñun bu ñu xool suñu bopp nañu xool bu ñu àndee lan la ñu mën a am nañu xool bu ñu àndee fan la ñu mën a dem ndax àdduna bi jaxasoo na Sénégal am na alal bu ci feeñ te nit ñi duñ ñu bàyyi noonu ah duñ ñu seetaan bu ñu gisee ñaar ñuy dem sax bëgg ko yàq mbaat sama mbalaak réew moo xam ne am na alal boo xam ne nit ñi soxla ne ko kon élection yi ñu jëm ginnaaw suba dimanche buy taw sax soxlawul imperméable wutal sa serviette takk ci mbuus li tax ma ne wutal sa serviette takk ci mbuus mooy bëgguma ñu tooyal bulletin yi bu ñu duggee ci bureau de vote bu ñu duggee ba ci biir bureau de vote yi ñu génnee suñuy serviette fomp ba wow man de maa ngi toog naan mu taw mu bañ a taw buñ naan 7 bi ma matin jot na may départ kenn du jiitu sama biro de vote ma voté voté Benno Bokk Yaakaar ba pare fii ak tey ba dimanche ñun dëgg la Sicap lañ dëkk mais fu ne am nañ fa xamee ci Dakar bu ñu demee Médina fekk fa suñu ay nit bu ñu demee Fass fekk fa suñu ay mbokk bu ñu demee Cambérène fekk fa suñu ay nit régi département commune yu ñu dem ci 19 communes u Dakar yi na ñu fa sensibiliser ñu ñu fa am ndax nag ñun pël bu rafet bu xees bii la ñu dama am contentieux ak moom parce que nee na ñëwaguma plateau dama koy wax balaa mu ciy ñëw ma jiitu ko ci mais na ñu xam ne nous jouons notre destin pas parce que nous pouvons perdre ou nous pouvons gagner, mais parce que l'avenir que nous voulons se construit aujourd'hui et on a les destinées en main.